du nit koo xam ne aussi dama nekk ak sama jëkkër. Mm-hmm. Omar Kaldé que je salue. Mm-hmm. Seydou Baro maa ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. bëgg ko. ñu ñu nekk di sëy. am benn doom. muy Abdul Xaadir Kanabas. sama papa nag moo ñu jàppale.

toll woon na ay jamono soxla woon naa ndimbal mhm. ba yaay ñoom Fanta nga xam ne ñoom laa doon àndal matin midi soir mhm. daan nañ ma jàppale dañ ma daan jàppale bi ñu demee nag ba sam papa dimbali ñu mhm. ci lañ toll fii donc Seydi Baro li mu mel tey man la waaye delloo ma njukkal delloo ma njukkal ndekete mi ngi rimandaat ci suuf

Jarang namun nila. Budol siya sa sakna. Masyaza sa kadam. Masyaza sa madam jappala ko. ndax li ma jàppalee bàyyam ba mu agsi ba fii loolu laay gungee sama doom ba mu àgg fa war a àgg il faut faire un choix et c'est un choix te njureel dafa foor yaay dafa dafa dafa dafa soxe ci doom doom dafa soxe ci ndeyam voilà li ci des nag dama spoilé

toujours il y a des exceptions am na ñoo xam ne dañuy jël seen goro téye ko comme yaay bi leen jur mm-hmm. am na ñoo xam ne seen goro sagar lañ ko jàppee mm-hmm. ak loo leen téye téye téye téye loo ñëw ci ñoom compagnon seen la bëgge mais ñooñu defe naa sëy si ñu dañuy ñëw ut lu ñu am mm-hmm. ndax kuy ñëw di sëy si ngay seey surtout ça

fan yaa ngi crise cardiaque mm-hmm. fan yaa ngi def cancer cancer mm-hmm. keroog gis naa euh, liir naa ci ci ci internet ñoo xam dafa am benn femme boo xam ne jëkkëram moo ko poussé à ce qu'elle se brûle waaye ah xam nga Tamba xaw dëkk ndax jëkkër ji faalewu ko di ko def lu ko metti ba en dafa dafa jël essence ba rek taaloo ko mm-hmm. donc boo ñëwee di sëy dafa dafa dafa doy waar dafa complexe te nit kenn mënu ko jugé ci biir sëy ndax nit ka la muy daj moom rek moom moo ko xam ak yàlla biir néeg matt lal la fa ne yàlla rek ko ko xam moo tax la ñuy maano bu bare compagnie séelé bi fi nag lu ñuy ut la ñu am te séelé bi dafa yàggut xaar moom ndeyam mais nag du moom kenn dañ ko jàppale man def naa lu ma mën oo naa ko ci lekk oo naa ko ci ruq waxtaan naa ak moom nee naa ko nëbbatul seen am na yenn yoo xam ne doo fës mhm. mais faalewu ma lu ma wax rek làmmiñam bu saf boobu mu taxaw na ko dagañ ma ko mhm. lu ma wax mu dagañ ma ko waaye fa mu mujje les mu toog fii si tabaski viendra <laughs> euh, ba tey euh, lan nga ñu mën a expliquer euh, ci ñu bare bari ñu ngi naan Fanta moom moo jur seexu Seynabou lan nga ñu ci mën a wax

avec réflexion. Vous regardez les jumelles, mhm. vous regardez Fanta, vous regardez euh, Ça ne devait pas être une équation. Mhm. Donc peut-être un petit-petit petit parce que tamit am amour bu